waa détail yu album bi euh, li ma bëgg album bi tudd mooy friendship xarito xarito xarito laa bëgg album bi tudd bon parce que Sidaat bu la bu la sunu borom dimbalee da ngay sant yàlla xam nga euh, single bi njëkk a génn mooy nii laay santee ndaxte da ngay am way jur way jur yooyu nekk sa ay xarit mm-hmm. nga jàpp leen ni way jur mais jàpp aussi ni ko ay xarit ay xarit ay xarit nañu bi ci topp ma génn way bu ñuy wax dara matul dara matul aussi li ko ëmb dafa bëri ñu ne deetawaay ma génne rendre hommage Ousmane Tanor Dieng am yeneen i titre yoo xam ne mi ngi ci biir album bi euh, dañu ci way sunu ay xarit. c'est un album de combien de titres fu mu nekk nii on a déjà. Euh, trois singles yoo xam ne génn na muy li lay santé Daramatul ak euh, hommage à Ousmane Tanor Dieng donc normalement on doit avoir quatre autres ou cinq autres parce que bon on travaille quoi c'est-à-dire que et puis amul amul amul stress quoi dañuy liggéey et tout ça et puis liggéey ko de telle sorte que ku nekk rek bu ci bu ko nga ci mën a gis sa bopp texte yi aussi am loo xamante ni contenu bi nekk loo xam ne lu am solo la parce que moi en général mes albums gars yi dañuy xaar aussi bind bi si lan lay lay tegu quoi donc loolu du doon loo xamante ni da ngay tëb nii rek euh, tu le fais donc tout le temps il y des choses yoo xamante ni dama koy bëgg wax léegi ni maa ngi lay wax ne la Ibou il m'a dit que dafa bëggoon pour ñu bind benn morceau boo xam dañuy rendre hommage nit ñi nekk les Sénégalais de l'extérieur de la diaspora donc mhm. yooyu c'est des choses laata ñëw fii ci la ma ko wax donc c' est un autre bu war a yokk ci ci album bi. en même temps en même temps donc dañuy sant rek yàlla te xam ne que lu ñu mën rek euh, ginnaaw jur yi ñoom la parce que ki lay may nopp di la déglu ak xam li ngay def ak bëgg. dégg yow lu bees li ngay def kooku amoo payam man suma ay fan sa aw ma seen fay ñi ma bëgg aw ma seen fay ñi ma gëm itam aw ma seen fay mais bientôt rek l'album va sortir inchallah l'album sera disponible alors mm-hmm, Abi euh, comme mu mel ni yaa ngi ci liggéey production album mm-hmm. mais en même temps yaa ci euh, business bi en même temps di liggéey mm-hmm. euh, ci biir business bi gis nañ ni dem nga ci sax ba am ci problème ak nga xamante ni que mën nañ wax ni c'est un grand monsieur muy Pierre Atepa niche. Mhm. Euh, liggéey bi way bi ak business bi ñaar yi nga boole ko ba actuellement yaa ngi ci euh, yoon ah, n'est-ce pas euh, loolu ñaar yooyu naka nga leen di boole au fait. au fait euh, Sidaat moom laa lay expliquer sànq ci doorateelu émission bi dama la bi ma ñibbisee dama ubbi atelier de couture. Mhm. donc c'est pas ma première fois que may def la musique et puis di def euh, leneen li nga xamante ni. mooy mooy beneen business boo xam ne mhm. bokkut ak moom. parce que moom li am solo ba am solo rek mooy que ni nit li ngay def rek nan nekk na base bi na nekk lu jub rek bu nekkee lu jub mun nga leen boole parce que yëpp lu jub lay doon. Mhm. donc du doon du doon problème le projet que j'ai sur la corniche incha allah rabbi après Euh, bon. mais fan nga ci toll actuellement euh, parce que les sénégalais bëgg neen xam euh, loo xamante ni nag yegg si na ci public bi gars yi jot nañ info yi gis nañ ñu ngi suivre tout le temps ce qui se passe entre yow ak ki nga xamante ni moo di Pierre Atepa Goudiaby di ko xamante ni que moom depuis très longtemps dafay nekk ci projet wu corniche bi yéen ñaar ngeen am ay contentieux yoo xamante ni fu mu toll ni sénégalais yëpp jot nañ ci. Mm. actuellement comment ça se passe mën nañ wax ni yéen a ngi xëccoo toujours ci boor bi moom mi xëcc boor bële léeg-léeg ñu ne. moom gagné na léeg-léeg ñu ne Habib gagné na euh, comment ça se passe actuellement seen diggante yéen ñaar. bon au fait euh, bon man dama ne woon sax su ma ñëwee wax yooyu dama ko duma ko sax wax parce que c'est une chose euh, sida xam nga nettali xuloo dafay indi xuloo mhm. te a des choses yoo xam comme information la bëgg nañ bëgg nañ xam yoon la ma sama ci yoon te directement ni on n'a pas un problème directement bon c'est une place boo xamante ni bon peut-être publié woon na ay quelques wax et tout ça mais bi ñu yóbboo ci yoon lundi passé je pense ci le délibéré bi am juge bi euh, s'est prononcé à ma faveur bon encore une fois comme j'ai dit et je le redis il pas de victoire bu abindur am ou bien défaite bu kenn am ñoo bokk réew mi dañuy liggéey man may liggéey keneen di liggéey ñëpp di liggéey dañuy waral jàppalante ci sunu biir parce que loolu mooy li ëpp solo ndaxte fierté doomu aadama ak grandeur doomu aadama c'est-à-dire que weesuwul nga fekk abindur teg table di jaay ñaari doomu gerte nga ne ko kañ dem syndicat a jëndal la saaku gerte ngay saaf bu saafee su bëgg a gis ko mu am boutique wala mu am kiosque boo ko gestoo yow war nga xam ne que yow li la sunu borom sant yaa ngi koy def looloo ëpp solo xuloo bi ak xeex bi man xulowuma kenn si mais am mais amoon nga la naqari parce que. waaw abi abi kenn mësu koo gis. mais jógewul ci ñoom mu am euh, loo xamante ni que pour la première fois au Sénégal. Mhm. Euh, nu gis abi euh, maanaam mu nekk en direct di jooy di wax problème am ba monde entier bi ñëpp di ko naqarlu. en tant que jigéen muy mhm. wax li nga xamante ni mooy li muy dund actuellement avec Pierre Atepa Goudiaby pourquoi ni la suite. c'est parce que c'est de l'information au fait. tout à fait au une affaire pendante à la justice. non benn évacué nañu benn depuis lundi benn procès mooy si la place la bu ñu ne dañuy may fay jëlee eh, évacué nañu problème boobu noonu bon li am mooy que ni man dama yor sama place fukki at 2009 ba tey bépp kayit boo ma laaj dama la koy tegal ci table bi parce que tamit réew mi mu dëkk bi ñu nekk dëkk nit ñi fii kenn yebu fi kenn quoi man yebu ma nit ñi bay ñëw fekk benn place ma ñëw ne maa ngi ko dama fay liggéey. Mhm. dama samay kayit. mu jaar ci yoon. may liggéey jël sama alal def ko fa jël sama temps def ko fa yor njaboot di jigéen rek war a liggéey di liggéey légalement comme yow mi boo bëggoon gis benn affaire dem liggéey dem gis ko wut ko. lool ci loolu laa nekk bi ma xamee ne que euh, am na ay mbir yoo xam ne dafa laxas yu ci suuf te nekkul loo xam ne lu jub la man dama ko teg ci table bi daal di génne kayit yi nga xam ne moom laa am ma wane ko ne kayit yi laa am. mais yamul foofu de abi. xaara dama génn dama def sama vidéo génne sama ay këyit. Mhm. xam nga dama yore ay këyit. bu ci nekk ma génn kayit ne kayit bi diw moo ma ko jox kayit bi diw moom ma ko jox kayit bi diw moo ma ko jox. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. bi ma génnee def loolu affaire bi dafa am stop parce que normalement nañu waroon na ñëw daaneel ko place bi ndaxte kayit googu laa jot. pour ñu ñëw daaneel ko te loolu je bien expliqué. sur la vidéo. bu nga xamante ni dañu waroon ñëw vendredi laa jot kayit bi pour lundi pour ñu ñëw daaneel ko. donc je me suis di que en tant que sénégalaise en tant que citoyenne je dois m'exprimer devant tous les sénégalais pour dire que je suis dans un projet. boo xamante ni dix ans laa ko yor bi ma amee projet boobu dix ans. lii ak lii ak lii ak lii laa fa def fukki at yi nangam ak nangam la kayit yëpp ma génne ko wane ko mhm. nee nañ nag léegi dañu koy ñëw dindi ko ci man mhm. buñ ko mënee daaneel nañ ko daaneel ndaxte man place ba defaruma maa ëpp place ba léegi ma bàyyi wax ji. Mhm. teg noonu après nag par la suite bi loolu bi loolu passé ci laa doog a dégg par la presse que jot naa ay plainte nangam ak nangam man yëgu jotuma woon ko jotuma ko woon. yow jotoo woon jot plainte. non ci presse bi laa ko yëgee man. ci presse nga yëgee plainte bi. dama gis il faut nga taxaw foofu léegi. <laughs> Sidaat xam nga film fa lay gën a neexee. Eh, film wu ma fi de man sama album moo ma fi indi. a neexee foofu na ko. déggoo ma ne la man bugguma kaani. la la la le temps faram-fàccee xibaar yi. bugguma kaani de man man yow plainte bi ban la indilee plainte bi taxawal foofu. Sidaat euh, je suis là pour mon album. <laughs> non on va parler de l' album mais aussi on va parler tamit euh, des infos si la bokk ah donc mu mel ni tey Abibatou Ndour mooy sunu invité dans l' émission Kër gi euh, vraiment am mbégte ak contentement di ànd ak yéen mu mel ni kon fu mu toll nii vingt heures zéro minute jot na alors tout de suite le flash à la présentation monsieur Jo Marone Jo bonsoir.